nit ñi duñ dund ci jàmm ah kay dina am ñoo xam ne dund ci jàmm de waaye yow doo dëkk ci jàmm te nit koo xamante ni ne nee nga moom nit ñi moom dinañ dund ci jàmm insha allahu rabbi xëy na yàlla dina wàccee nattu ci ñenn ñi de mais yow ci jàmm rek ngay dëkk loolu moom mooy dëgg nag Amina yow tamit nag. surtout surtout ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci daal di jëlee gaañu gaañu actuellement euh, gis nañ ni euh, ña ca waroon a wax ñu ci bari waxuñu ci comme ñi nga xamante ne je pense que wax nañ ci la fois passée ña waroon a taxaw ne ko daal di recadré waat seen ay militants ñu ci bari déggoo leen ñu wax si dañoo dañoo dañoo def comme si ce n'est rien fait. <laughs> nee na nee na nee na meeru kii la Maabo Maabo. et non Mbaaw. waaw meeru Maabo moom la ñu xaaj moom lañ xaaj ñu ngi koy ñu ngi koy euh, masaw man xaw ma sax moom fan la bokk. man coalition la bokk sax après ngeen enquête ñun daal en tout cas ñu ngi nekk nag moo xam dafa bokk Pastef moo xam dafa bokk si euh, opposition ah ñi nga xam ne dañoo dañ cee jëlee ay loraange blessé mais ñooñu ñooñu dañu ñooñu dañoo war a porte plainte sax ñooñu dañoo war a porter plainte genre ay Malick Gakou yi dangaa war a parce que yow lu mu bon bon bon bon bon am ngeen tuuti trace oto yi leen song gis ngeen photo yañ ca taf Jakarta leen song gis nañ photo yañ yañ ca taf mais responsable soo soo gisee affiche yi am ay Aïdara mais Ahmed Aïdara moom noonu laay porter plainte ma mm-hmm. oto yañ jàpp am na ay photo Ahmed Aïdara kay te ñooñu ñoo jàkkaarloo woon ak ñin di sànnante ñin ba mu am ay blessé nga porter amee ay Aïdara moomu ngay porter plainte mu ñëw mu wuyu si si parce que mënu ko weddi boo ko weddee tamit Amina dañ naan la eh oto yi nii yëpp yow yaa ko moom nga ne moomoo ko ñu ne kon say affiche lu mu fi def nga ne xaw ma ko. yaa leen jaboote. waaw léegi ñu ne la waa léegi yow léegi indil chauffeur yi dañoo daw ñuy xanaa ñii numéro oto yi nii yow xàmmee nga oto yi yéen a départ andoo loolu moom mooy dëgg nañ bàyyi fitna bi yeggali euh, euh, euh, samedi passé minuit la am une semaine fukki fan ak juróom. mooy benn fan ak genn wàll moo ci des kon léegi matatul sax quinze jours dégg nga vingt et un jours la campagne la ñu gérer ko le 17 novembre ñu dem ñu voté euh, samp assemblée nationale élection yi jeex bu fi amatee deux mille vingt sept la ñu liggéey ñu génn ci élec ñu génn ci euh, euh, coowal élection naa dëkk boo xamante ni nii gars yi campagne électorale permanente dafa continuer rek bañ na du arrêté ba pare et puis normal am na ñoo xam ne looloo leen neex. looloo leen di dundal looloo su ay élection su ay élection ak ay activité politique amul ñooñu ñoom la ñuy woowee les politiciens professionnels. ces dernières années moom boo activité bëri nañ trop. non dama ne. non ñun ñee gën a intéressé wu ci làngum politique léegi. dama ne. Mm-hmm. les politiciens professionnels comme que loolu seen carte d'identité profession profession politicien. lañ ci bind entre guillemets seen bopp yi ñoom jàpp nañ ne loolu loolu loolu loolu maanaam activité politique bu amulee du ñu dund dégg loolu nag il faut rupture bi rupture bi rupture bi nga xam ne nit ñi sentir nañ ko ci élection yi de le parti au pouvoir des Pastef gisoo ay tiseem de xaw ma ban société yi defar eh, textile fii ci réew mi moo daan defar ay tissu hmm, dañ ko jële bitim réew. te si Amadou Ba yi dee ba léegi. ak xale bu xale bi suñu doom jii di doon liggéeyee suñu kër de temps yi léegi la dem dem jàngi moom daal xam naa ni daal euh, së sërëm ba daal Amadou bala waaye ba <laughs> premier jour boo ñëwee dugg sama kër rek gis ko. parce ah, que moom lay moom lay liggéeyee. moom day moom lay moom moom day moom moom Ba bi gaayen lay moom daal moom xam naa ni daal moom daal lay teg ci kaw moom. politique yi njëkk ya lay ba daal Amadou Ba la benn xale bu jigéen <laughs> mu dugg rek gis ko ne ma ne madame <laughs> waaw moom xanaa nga am ab affaire mu ne ma ah mu ne ko ah gisoo kii nii li mu woddoo mu ne ma ah <laughs> léegi nu ñuy def nag ma ne ko ah nu ñuy def doo ko bàyyi. lii di yére <laughs> di si Amadou Ba rek waaye. politique yi njëkk moom daal boole nii rek laa lay wax nii xoolal gis sama yaay jooju laa lay yox nii ak Amadou Ba mu génn dem ca bitig ba ñëw daal di duggaat léegi nag xoolal parti au pouvoir bi man de gisaguma ma tey tissu ay lakkos daal dama leen di gis te ñoom moom ñoo koy jëndal seen bopp waaw bu ko defee nag rupture bi tamit foofu tamit soxna Amina. Mm-hmm. dafa war a yegg nag. Mm-hmm. ñii indi fitna daal 15 jours yi des. na waay yow nañu sanctionné nga xam ne léegi ku ci nekk même boo nekkee ci biir mbooloo da ngay ragale def yéene parce que da naan xoolee estatu tubaab yi ñaata doomu aadama ñoom ñoo fay nekk estat yi ay quatre vingt mille places yii ay quatre vingt dix mille places ëpp Léopold su sugu anglais gis nga seen estat yi ni mu mel ak espagnol yi. maanaam booy dóor corner sax. jour mun na laa koŋ. supporter mën na mën na la koŋ mais xoolal discipliné. parce que ku ci nekk yaa ngi naan su ma fi defee nangam buñ ma sanctionné tubaab yi nekkul na dañoo discipliner yenn discipline yooyu de mais sanction yenn saa yi mooy miti moo xam ay feu rouge laag ay xaw ma passage piéton feu bi xoolal feu bi day tàkk verte oto yi war na bërit nga gis kenn koo xam ne tegoon na tànkam ci passage piéton ñëppay taxaw. Mm-hmm. discipliné dëkk bu ne gën a bëri nit moo la gën a discipliné. mais dëkk boo xamante ni nii gars yi yow yorub xeer gars yi bàyyi ay nit di romb gars nga sànni ko ci ay biiri mer. après. de passage internet yaa ngi rafetlu discours bi nga am foofu noonu ca Casamance nee nañ daw na yaram. discours ba day daal mujj sàlli. te xamal lan mooy sàllil discours. Mm. la constance. yow daal da nga góorgóorlu rek sëñ Abdoulaye da doon wax ne képp koo xam ne ay kàdduy démbam daa méngoo jëfi tayam jàppal ci ñun la bokk. waaye koo xam ne ay kàdduy démbam daa safaanoo lool ak jëfi tayam baal mu dem baal mu dem baal mu dem baal mu dem <laughs> wala Abdou <laughs> man day dama man day foofu rek te kilifa gi tam maa ngi profité ci antenne bi euh, di ko gërëm di ko sant nga may ma rek loolu ca commencement balaa ko def sax moom la président Ousmane Sonko waaw mm-hmm. ah, di ko wax ne it dara euh, nga yu bëri na reer ba neex na lekk naa bu suur. kontaan nga <laughs> kontaan naa. <laughs> asugu <laughs> ma ne ko daal en tout daal moom daal teg nañ nii ah lekk yi moom tarkalla moom te man moom xam nga ne man sërif laa waaw te xool ko fii nii ñu nafar alxuraan ci léegi nag. xamal sa boulot. ah da doon non teg nañ fii kaldu de yéen kay waroon naa leen tibbal ci kaldu yi. Hmm. kal duy am bëgg teg nañ fi xanaa bi nga teg nañ fee ginaar ah waale Bodian waaw loo ko doon wax waale non daf ma doon wax fii ne ma Macky Sall daf la mooy <laughs> mu ne mu ne ma non non lim la bëggoon def yooyu defula ko ñoom Ousmane la taloon waale ndaanaan la bon mhm. ñu gërëm ko sant ko bu baax nag moom la président Ousmane Sonko voilà mais nit ku nit ku nit ku nit ku baax la quoi nit ku baax la nit ko baax la. voilà ba tey ci moom sax. ah non baax la. waaye nag xam nga moom heure waxam moom heure wax dëgg moom bu jotee. buy wax mais gis nga te gis nga fépp foo fekk nit ñooñu ils ont de grands cœurs wallaahi nit ñi nga xamante ne nii du ñu tricher du ñu tapale. quand il parle ñoom il parle avec le cœur ba pare lu nit ñi nekk fii di bàyyi bàyyi ak nangam sàngam nii. xoolal danaa ne ko daaj jóg dem seen yoon ñooñu enquêtal ci ñoom mais ay nit ñoo xam ne yow bëggoo kenn mer voulant faire plaisir à tout le monde. dafay fóole. loolu loolu fan la mën a nekkee. yaa waaw. i mhm. eh, man de man sant naa ko man gërëm naa ko dara ngay bari na. lekk nañ ba suur naan nañ ba màndi te nañ ñu vraiment mhm. waaw. voilà ba tey ci moom moom. teral na ma daal fa <laughs> voilà ñu ñu ñu desandi ba tey euh, si moment moom euh, Ousmane Sonko mi nga xamante ni mu ngi sur le terrain en tant que leader parti PASTEF et non en tant que premier ministre am na ab discours bu mu daal di yëkkati foofee ca euh, caravane bu Ziguinchor ba di xam la ni rek mbirum général Kandé ak mbirum armée bi moom désormais dafa nekk loo xamante ni mayuñu ku nekk mu ci daal di yëkkati ab kàddu d'ailleurs sax am na benn livre bu am nasaraan bind Ami Cissé nee na boobee nag duñ ko daal di bàyyi mu koy promouvoir wala ñu koy daal di jàllale ci réewum Sénégal. loolu mooy dëgg Amina parce que mm-hmm. tubaab bi nag il faudra que à un moment donné ñu may ñu suñu jàmm mm-hmm.